Khalifa Babacar Sall mi ñu bay bàyyi par décret présidentiel tey ban yëg-yëg nga ci am. alhamdulilah rabil alamin sant yàlla rek bu baree bari bari lu jot yomb ànd na dugg na si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rahmaani ànd dignité bu mat sëkk mënuñu daal lu sant yàlla di ñaan yàlla rek. jeex jërëjëf merci. ñu keneen koo xam it mu ngi fii ñëw di teeru ki nga xam ne mooy Khalifa Babacar Sall ñu ngi lay nuyu soxna maa ngi lay fay. naka nga tudd. dama fa maa ngi tudd Fane Tunkara bu xalifa Sall dixième. voilà tey Fane Ndiaye Tunkara bu Khalifa Sall xalifa Sall ñu daal di koy bàyyi ginnaaw ñetti atti kaso yoo xam ne euh, def na ko lan ngay yéeg kontaan torop dama kontaan ba mun wax ndaxte dama am sax dese sama sama sama sama copine intime moo gaañu may jooy sama mag woo ma ne ma xalifa génn na ma tëb daw Sall Khalifa kilifa moo ñu doon muñloo moom ci moom mi nekk si biir moom moo ñu doon muñ lu jot yomb di gërëm nag Iran Ndaw bu baax a baax a baax a baax Iran Ndaw ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax parce que mënul génne ko mais wax na daal wax na di wax di wax di wax xalifa na yal na ko lii jig daal yal na ko lii jig moo ma tax a jóg man ñëw ba fii wéru sax ndax damaa am dëj sama copine intime moo gaañu sama mag woo ma rek ma daw kenn yëgu ma merci allez du nu ñu leen ko waxee woon ñu ngi en direct fii nga xam ne moom mooy kaso bu Rebeuss donc à tout moment Khalifa Babacar Sall mun naa génn fi nga xam ne mooy kaso bi ñu daal di ñëw xool si ay partisans woom ñoom nag ban yëg-yëg lañ ci am ñu taxaw ak keneen ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi leen di fay. naka nga tudd. maa ngi tudd Vieux Thiam dëkk Grand Yoff. nu ñu ko waxee léegi yow tey ban yëg yéeg nga am. waaye yëg yéeg bu rëy te du metteel ci man. parce que boo xoolee ajuma ci inauguration juma ji loolu ku guddul fan dootoo ko fekke waat kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan ñëpp daje waxtaan ñaan yàlla yaakaar naa ni ku guddul fan daje boobu dana yéex a am man mii di wax ak yow Véthiam musuma taxaw jugement xalifa musuma seet ci xalifa tribunal parce que man mënuma gis ñuy jugé Khalifa Ababacar Sall mësuma taxaw rëbës lu dul bésu tey bii parce que sama ngor ak sama dignité ak dignité xalifa Sall ak gor gi mu doon ak ñàkk combine bëre bi mu xam ak jubam ak yaatoom ak ragal yàllaam moo tax mënuma ñëw 100 mètres wala may dem di seetaan jugement am tey jii nag moom lépp leer na parce que lu yàgg rek dëgg la loo gis ci àddina yàlla moo koy dogal jiitu na juddoom waaye jeex na tey dinaa leen wax ni leen képp koo xam ni waxoon nga ci lu rafet ñaan nga ci taxawu nga ci musulu nga ci muy senegal di bitim réew di kilifa diine yi di kilifa aada yi di militant yi di dëkkandoo yi région yëpp senegal gi yëpp monde bi yëpp bésu tey bi vraiment maa ngi ciy félicité ñëpp di remercier ñëpp parce que xol yëpp sedd na sedd moo fi indi nit ñi nii dinaa la wax ni la nag li ci kanam rawul bët. ndax ku dul combine bëre yàlla ca kanam la lay teg wasalaam. Ah, dégg ngeen ko ñoom nag ñi ngi joxe seen ay impression par rapport ak libération Khalifa Ababacar Sall waaye ñu doxantuwaat feneen rek jéem a xool euh, yeneen euh, partisan ba xam nag ñoom nan nañu dundee euh, mbir mi bu ko defee ñu tamit ànd toog xaar ba xam xalifa Ababacar Sall ban heure lay génn parce que ci timis la ñu wax ne décret présidentiel daal nañ koy signé ngir rek ñeel libération Khalifa Ababacar Sall donc dañu ciy ànd ak yéen rek daal di ñëw si ay partisans wam xool seen impression par rapport ak libération bi ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay. voilà yaa ngi en direct ci Sénégal ñeel libération par décret bu Khalifa Babacar Sall nekkoon fii ancien maire bu ndakaaru tey ban yëg-yëg ngay am. yëg-yëg bi ñu am mooy kontaan. di sant di wax alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla di sant Serigne Touba suñu wasila te xam ni lépp Serigne Touba la xam nañ ni Serigne Touba ñëw na dakaar keroog ba sëñ Sidil Muxtaar ne salaamaaleykum Dakaru ñu inauguré Masaliku Jinaan jiboole ñaari président yi fi nekkoon teg ci ñaari fan ñu xëy libéré Khalifa Ababacar Sall kon alhamdulilahi rabil alamin la ñuy wax sant yàlla te xam ne xalifa rek xalifa dongo xalifa kese la ñu wax. ñu jël sa impression yow it voilà kon nag dégg ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ak Khalifa Ababacar Sall ñoom nag ni ma ko waxee woon mbégte la ñu àndal ak euh, contentement di toog ci euh, buntu rëbës xaar rek euh, ki nga xam ne moom mooy seen leader voilà waa Sénégo la ñu ngi en direct Sénégo gis nga ni ñu ko defee saa ne en direct sur Sénégo <laughs> voilà comme niñ leen ko waxee woon ñu ngi en direct fi nga xam ne moom mooy Sénégo li nga xam ne mooy libération Khalifa Ababacar sàll gis na